Salam alaikum wa Movie TV. Aujourd'hui, on revient dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un texte en audio MP3. tey dañ leen wan tey nag def ba jël texte bi ngeen def ko audio comme ça ben écriture ni texte ngeen jël texte bi def audio en MP3 mu nekk sur forme de son tey loolu lañ bëgg ñëw tey ko wan na leen koy premier je dañ présenter une application bu fiable boo xamante ni da koy def en audio MP3 Euh, bu vidéo bi di jeex nañ présenté benn site bu fiable boo xam aussi tamit da koy def site boobu moo gën a fiable bu la neexee ojo bi mën nga cee teg musique libre boo xam day daw ci mu nekk ojo euh, voix synthèse boo xam musique day daw ci suuf et cetera waaye tout d'abord dañ lay invité nga abonné ci chaîne bi balaa ñu continuer waaye boo leen bëggee loolu c'est facile application bi c'est facile c'est disponible sur Google Play Store ou euh, Apple Store application bi gratuitement maintenant si vous ni un Google Play Store maintenant da ngay ñëw ci barre de recherche bi comme d'habitude maintenant boo une ci barre de recherche bi da ngay bind audio comme ça da ngay def audio lab comme ça comme ni ma ko maintenant si maintenant bo défé audio lab après nga def recherche désolé connexion bi moo fayant du moins désolé oui maintenant ñu def recherche ñu xol maintenant bind nañ audio lab maintenant dañuy def recherche vous le voyez. Mais quand on fait recherche, on attend les résultats. Et maintenant, vous avez fait recherche, Oui, comme vous le voyez, maintenant, fait une recherche Audiolab. audio lab ni la même dimanche mais c'est la même chose ni premier résultat bi gis logo quoi vous le voyez oui voici l'audio application moo nekk Audio audio editor record etc oui maintenant si vous avez comme vous le voyez maintenant waaye léegi boo leen bësee ci application bi ñu patienté bu ko defee mu ñëw application bi ma nekk nii application bi la moom ngeen di xàmmee moom ngeen di téléchargé moom moo lay permettre nga mën a jël texte bi def ko en nojo MP3 te tamit am nay fonctionnalités yu bëri bu la neexee mën ngay mix ay sound et ci biir application mais ñun li ñu intéressé rek mooy que euh, jël euh, texte traduire ko en audio maintenant da ngeen koy téléchargé bu leen ko téléchargé pare maintenant ngeen def ouvrir comme vous le voyez maintenant on fait ouvrir oui les que def ouvrir bu ko defee application bi vous gis nga nii la oui maintenant vous ñu ouvrir ñu patiente bu ko defee application oui, ubbeeku waaye ni lay mel maintenant Ni la bienvenue à Audiolab oui mais la seule application de audio editor que aurez jamais besoin oui non là. maintenant ci flèche bi ngay bës bu ko defee mu suivant nga dem maintenant nga condition la oui voilà fi da ngay autoriser manam accord des autorisations de le stockage maintenant da ngay bës ci kaw fu rouge bi nga def autoriser oui maintenant nga bës ci flèche bi mu dem nga bës valider nee le la merci maintenant c'est ce problème application bi maintenant tijjeeku na oui voici l'application, gis ngeen fi pour roño audio la fi mixage comme le ma wax rek fusion éditeur convertir et cetera mais ñun li ñu intéressé moy fini nii texte parole texte à la parole mais amna na yenen gis nga fi vidéo vers audio manam nga jël vidéo bi def ko audio extra amna ay fonctionnalité yu bari bari ba ko télécharger di ngeen gëna a comprendre maintenant ñu liñu intéressé moy partie bi ni comme ni ngeen ko gissé partie texte à la parole oui partie bi mo nek ni partie texte à la parole maintenant ci partie bi ngeen ñëw li leen wax ci partie bi la nek maintenant légui da ngay cliquer vous cliquez maintenant ci partie bi comme ça vous le voyez la ngay bind texte bi gis du texte et ensuite jouer manam texte bi ngay ba nga jouer euh, de synthèse vocal Samsung la quoi euh, téléphone bi la euh, quoi langue bi la langue la cliquer langue gis nga anglais espagnol extra mais ñun français maintenant dañuy jël franc c'est France gis nga jël nañ ko maintenant waaw extra fii pour boo bëggee télécharger yeneen données de voix la fii punch maanaam boo bëggee vitesse bi muy wax mu gaaw fii punch maanaam voix kii wax boo bëggee mel maintenant texte bi fi nga koy bind texte bi nga bëgg euh, mu traduire ko fi nga koy bind aussi tam bu fekkee texte bi da nga koy copier feneen nga ñëw coller ko fi tamit c'est la même chose supposons ñu bind nii exemple ñu bind nii bienvenue ñu def nii bienvenue sur ma chaîne ñu def nii benn texte maa koy bind nii rek pour présenter leen euh, gis nga par exemple ñu ne bienvenue sur ma chaîne YouTube euh, ñu def seen mobile TV seen mobile TV ñu ni par ñu def nii ici vous aurez ici vous aurez des super tutoriels euh, ici vous aurez des super tutoriels et cetera waaw texte bi rek la ñuy bind lu ndaw ni bu ko defee ñu présenter leen maintenant boo leen bindee seen texte ba pare maintenant fii ngeen di bës. Bienvenue sur ma chaîne YouTube scène Mobile TV ici vous aurez des super tutoriels ACT. Bienvenue sur ma chaîne YouTube scène Mobile TV ici vous aurez des super tutoriels oui j'espère que comprendre ngeen ko maintenant bu fekkee voix bi muy wax dafa gaaw fi ngeen koy wàññee vitesse. wala ñëwee nii ngeen def ko ni huit ñu playoon ngeen xol bienvenue sur ma chaîne YouTube Sen Mobile TV ici vous aurez des super tutoriels. ouais j'espère que comprendre ngeen ko maintenant fi moy voix ku jigéen ki moom mooy mooy voix bi waaw fi langue bi la langue française etc. cetera.

xaar ñu dem Google bu ko defee ñu copier benn texte bu ko defee ñu wan leen bu ko defee ñu wan leen ngeen bu ko defee ñu leen ngeen xool ñu copier benn texte xaar ma pause vidéo bu ko defee. woy ma playaat vidéo bi sax pour expliquer leen nan la ñuy copier exemple dama ñëw bind fii Google comment faire des waaw gis ngeen premier résultat bi crêpe ma bés léegi premier résultat bu ko defee ngeen xool maintenant lii lañuy présenté léegi dañuy xool benn article boo xamante ne dinañ ko war a mën a bës. par exemple nous avons le premier résultat Nous nous ñu l'article article bi maintenant article bi euh, bu ko defee ñu patiente mu oui maintenant c'est juste nous bëgg copier le texte pour vous montrer que l'application, application vous pouvez copier les textes et coller et le traduire facilement oui gis ngeen maintenant si dañuy présent vous pouvez copier dans ngay techniques nii sa appuyer longtemps gis nga boo appuyé nii lay mel maintenant nga wàccee bës sa loxo ci kii bi gis nga bu ko defee nga wàcc gis nga ni ñu ko nii waaw pour kii bi la fii pour ay cookies la may wax ma accepté ko maintenant da ngay tegal sa gis nga maintenant nga wàcc gis nga ba ci texte bi gis nga nga wàcc ba fi nga bëgg mu yem gis nga gis nga maintenant boo paree gis ngeen ni copier copier ngeen di bës.

Ingrédients. Pour la pâte à crêpes, 250 g de farine de blé T65. aussi le texte bi euh, am na lu ma fàtte woon sax gis nga boo collé texte bi nii ba pare gis ngeen maintenant boo def. la recette de la pâte à crêpes. pour 10 à 15 crêpes préparation 10 000 cuisson 20 000. nga def créer bu fekkee texte bi nga def da nga ko bëgg a def sur forme de audio maintenant foofu ngay bës maintenant nga def créer gis nga fii musique nag la war a nekk nga def créer maintenant boo bësee créer nga patienter bu ko defee application bi daf koy def sur forme de audio manam léegi gis ngeen légui pare na léegi texte bi nek no audio maintenant rek ko gis gis la recette de la pâte à crêpes. pour 10 à 15 crêpes préparation 10 000 cuisson 20 000. ingrédients. pour la pâte à crêpes 250 g de farine. waaw j' espère que comprendre na ngeen ko maintenant texte bi def nañ ko audio MP3 léegi dañ leen wan deuxième méthode bi maanaam site internet bi nga xam ne moom tamit day def waaw lien site bi dinaa ko def ci suufu description bi maanaam suufu description boo leen fa bësee dangay gis lien site bi bu ko defee ngeen foofu tamit dafay traduire. waaye les amis bu ne ngeen ko gisee ñëw nañ maintenant si Google léegi dañuy coller fii lien site bi bu ko defee ñu mën a. acte lien site bi mo nek ni maintenant li mu ngi ci d'inscription bi mu leen ko waxee woon sànq boo leen bësee suufu d'inscription bi da ngeen ko meuna gis maintenant buñ ci duggé ci site bi site bi tamit da fay permettre nga meuna traduire euh texte bi en audio MP3 waaw maintenant duggu nañ ci comme vous le voyez maintenant euh, ñu ngi ni ci site bi lé da ngay blayer vers en bas gis nga bo len ñëwé fi fi la wax entrer your text manam nga duggal sa texte fi ngay bind sa texte bi nga bëgg. ñu ñu ñu ñu traduire la ko en audio MP3 gis nga léegi dañuy effacer li léegi ñu def ni bienvenue exemple ñu bindaal la même chose waaw ñu def ni bienvenue sur ma chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube seen Mobile TV exemple. ñu def bi rek j'espère que comprendre ngeen astuce bi ni muy demee da ngay bind sa texte wala nga dem euh, copier sa texte ñëw dool ko fi waaw nee na maximum 30 30 kilo la may maintenant boo ko fi collé pare léegi da ngay gën a wàccal en bas gis nga fii ngay sélectionné ki nga bëgg mu lire la texte bi gis nga boo sélectionné fi dina la indil yu bëri gis nga maintenant boo sélectionné français et cetera français mal français femelle gis nga ku góor et cetera maintenant boo pare léegi fan ngay bës. ba ci site la fi maintenant filtre ngay cliquer maintenant gis nga maintenant patiente bu bienvenue sur ma chaîne YouTube ce mobile. exemple léegi audio bi nii la bienvenue sur ma chaîne YouTube ce mobile. maintenant nii la defee audio bi quoi oui j'espère que comprendre ngeen ko maintenant bu fekkee da nga ci bëgg a teg musique musique libre fii ngay cliquer musique yi ñoo nekk ni exemple ñu bëri ñu wan leen ñu pele j' espère que comprendre ngeen ko maintenant. bienvenue sur ma chaîne YouTube ce mobile tout. léegi boo bëggee télécharger audio bi fii ngay bës trois traits yi gis nga nga def ni télécharger. mu ñëw sa galerie j'espère que comprendre ngeen astuce bi xaama pause audio bi j'espère que comprendre ngeen ko noonu lay fonctionner quoi ñu neen wax ngeen abonné ci chaîne mobile TV pour ne pas manquer nos prochaines vidéos vidéo bi di ñëw dinañ la naa leen wan yan application record laay utiliser maanaam application record yi nga xam moom laay capturer sama écran bi ñaari application rek naa leen ko présenter expliquer leen fonctionner ok jaa ngeen jëf